campagne électorale ubbeegul pré-campagne sax teel na wante ñi nga xam ni dañuy nguuru wala ñu ñam ko dooraat nañu di wane seen bopp bu baax teel a yëglu taxaw ci jaamu seen soxla donn nag moonte ñoom de gëjoon nañ fi ñépp doon leen laajte ñu réeroon mër tey nag dellusiwaat nanu di tuur seen pepp ku ci topp di for nag sa responsabilité la da nga ko layoo ak sa bopp door ko layoo ak dëkk bi li ministre maire Moustapha Diop di def wëndeel askanam la ba bu waroon a xool fii mujj di xool fële fi ñu toll tey ci moom ak keneen ku mel ne moom mooy ñu jàkkaarloo ak ñi leen joxoon lenge yi ne leen 2014 ba léegi lii lañu fi def na fekk nag ñu am lu ñu wane ak lu ñu mën a teg baaraam lu wuute ak làmp yi wala tali yi nga xam ni du maire wante état central moo ko fi def lii képp ku ñu faloon te jaaroo ci wante nga bëgg a jëmale nit ñi feneen yaa ngi bëgg a tuur lëndëm sa askan beneen tuur lëndëm bu nit ñi war a bàyyi xel mooy taxawaayu Mamour jàlloo fii ba ñuy gis leneen du mës a samp ndëndëm ngir doon maire bu Louga ci atum 2022 et j'espère qu'il me donnera tort muy moom di Oumar Boun Khattab Sylla topp leen ci ginnaaw Moustapha ñu topp ca la ñuy mujjee te naruñu ko teg fenn fudul ne président moo ko bëgg ñoom ñii nga xam ni ba ñu defee bilan Moustapha Diop du tey li ñuy xaar ci ñoom ci Louga mooy ñu am courage bi Mary Teuw Niane am ca Saint-Louis moom mii taxaw temm ne maire la bëgg doon jële fa Mansour fay président Macky di goro ci kii ñu mujjee tudd waxagu ci dara te ñuy déglu nag ndax dana ci wax dara moom moo demoon Kaffrine ca cooki ñaari ya Sow ak wilaan mu ne leen nanu toog te déglu ko moom itam moo demoon Podor ca xeexu Aïssata Tall sàll ak Racine Siba mu ñaan leen ñu waxtaan ba juboo moom mi daawul gis lu xonq te léegi di ko laaj dana demaat feneen waxaat leneen li am ba des mooy élection locale bu ci yoonam nekkee itam bari wu ci renseignements généraux dëgg la wante président mënula la gën a xam réalité locale ñi koy dund bis bu yàlla sàkk kon élection locale président mënu cee ëppale askan wi ku bàyyi sa cër nag keneen for te bu ko neexee di la ci dóor doon nañu neex lool Mamour Diallo ak Oumar Boun Khattab samp seen ndënd ngir maire yi Louga bu boobaa firnde lay doon ci ne cofeel bi ñu am ci président Macky Sall bu ko ëpp lañu am ci Louga